ministre bi ñu dénk napp gi mbaal gi mu sànni démb ci la yéenekaay yi xëy di lëx-lëx ubbi l'observateur mi ngi ñuy xibaar ne ministère de la pêche des infrastructures maritimes ak portuaires siiwal nañu démb li sub gaal ak bato yuy jox ndigal mu di autorisation ngir ñu mën a napp ci géejug Sénégal gi yéenekaay bi nañu toll nañu ci gaal bato yoo xam ne ay doomi Sénégal ñoo ko ak fukki bato juróom-ñeent yoo xam ne ay bato étranger lañu permis de pêche yi Sénégal mi ngi ñuy wax ñu yooyee ay permis type A joxe nañu ci ñeent nañu ci ñetti junni ak téeméer ak juróom fukk ak benn permis yi ñuy wooye ay permis type joxe nañu ci junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak benn Vox Populi mi bind ci xët mu njëkk ne état bi siiwal na liste su bateau yu ñu autorisé ngir ñu napp ci waaxi réew mi dolli na ci dañu xamal li ñu joxe ci ay permis de pêche lépp lépp boo ko boolee calculé ko toll na ci juróom-ñaari junni permis de pêche ak ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett liste yi ñu siiwal boolewuñu ci ñi nga xam ne seeni dossier dañu koy càmbar ngirug renouvellement ñooñe bokkuñu ci libération bind na nay leer docteur Fatou Diouf ministre de la pêche bëggul lëndëm liste bi waa ministre de la pêche siiwal démb Walf Quotidien nee nañu xeltee na ci mbir yi xeeñ na lool ay prête non bari na ay bato yoo xam ne nee nañu ay doomi Sénégal ko moom waaye moomuñu ko ay nit ko moom dénk leen ko ay prête non la ca waaye duñ kaña la moom amul fenn fu ñu gisee ci liste ba bateau chinois te ñaari réew yooyu seen digg géejug Sénégal gi yéenekaay bi nee nañu umpul kenn liste bi waa ministère de la pêche publié démb di wax bateau gaal am sañ-sañu nappi ci waaxi Sénégal yi journal L'As ne nañu bari na yu mu gis ci liste ba yu ko ëlëm ndax gis na ci liste ba ay bateau yu ñu ne jox nañu leen autorisation te bateau yooyu amatuñu ba ñu gëjee existé ak léegi mat na ñeenti at mi ngi ñuy waxit las yéenekaay mi ngi ñuy wax ne Soppa bu Saer Seck ak Adama Lam ñoo ca ngar dajjo lépp réew mi quotidien ñu njiit réew mi Bassirou Diomaye Faye ginnaaw matuwaay yi mu jël ci jiiri ji mu di problème foncier yi am ci réew mi ma ngay régler léegi rëq-rëq ak ndëngate yi am ci géej gi kutëb dal ci xaal desena la wenente bi dafa mel ne loolee moo dal président Diomaye ci li mu waxoon ne day arrêté travaux yi ñu def ci littoral bi le quotidien woon sànc yi ci littoral bi yéenekaay bi nee nañu dafa tàmbali woon juri rolaange ndax gis nañu ñu ci naroon a doxee ñàkk seenub liggéey gis nañu it ay cargaison yu def ay matériel de construction ba fees dell yu ñu bloqué ca poorum Dakar bu lijjantee loolee ba mu féete boor président de la république am na yeneeni mbir yu waa ji di Thierno Bocoum di sàkku ci moom yëral xët mu njëkk journalisé ko Thierno Bocoum sàkku na ci président de la république nit ñi Karim Wade mi ñu tëye woon ci kaso bi tëj ko ba yàgg ñu génne ko yóbbu ko ca Qatar loolee lépp ci yenn condition ko defe woon réforme foncière yi mu junjoon moom président de la république ceex na bokk mi ngi sàkku ci moom mu dem ca ba jeex te bu koy lijjanti mu bañ a fàttewaale Azalaï hôtel gi mu dëkkoon bu ca noppee nag loi d'amnistie gi fi Macky defoon bàyyi fi bés bu demee ba jekko ci assemblée nationale mu jële fi loi bi maanaam hôpital public yi demal fa boppam gisal fa boppam ya fa am te du yoon gereew bu yàggati mitti gi am ci collectivité locale yi anki dina kay ci la xëy ba dañu wax ne tey la yëf yi gën a tar tension bi mi ngi fi ba léegi liggéeykat yi collectivité locale yi ay weer ngi ñu nekk ci xultoo ñaxtu ngir di jéebaane condition yi ñuy liggéey ndax nee nañu dara baaxu ci te suñu moytul nag anki dina kay nee nañu nit dina dee ci réew mi ay mbokkam duñu am fu ñu yëkkati seen kàddu ci réew mi di sàkku ci président Diomaye mu def ca la war pression la ko teg ngir mu rëq ndigg ñu ñu épinglé ca yooyu rapport ci ñu ko bëgg journal bi tudd na ci Alassane Seck président Ligue sénégalaise des droits de l'homme tudd ci Moundiaye Cissé bu ONC 3D tudd ci Ngouda Fall mi fi newoon jamono inspecteur général d'État chef de l'État bi fi nekkoon di Macky Sall mi ngi ci xët mu njëkk l'Observateur li mu bëgg moo Parti démocratique Sénégal moo leen di dal ñu dale ci journal Sud Quotidien ay kàngam yu ràññee ci géopolitique bi la gis ne ñu bari ci ñoom aw nañu yoonu dem retraite te seen àpp du jot maanaam ak retraite anticipée mi ngi yot ñu bari ci ñoom ñu ci mel ne Khalifa Sall Mamadou Diop Decroix Moustapha Niasse Abdoulaye Wade Aminata Mbengue Ndiaye Abdoulaye Bathily ak Idrissa Seck renouvellement mu di yeesal gi xeeñ ci géopolitique bi Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne ñoom ñëpp ci retraite politique anticipée ci la maanaam politiciens yi ci réew mi seen digg na ci def def gëstu ya fa nekk bu gën yéeme sa morom rek nga ne bii la am na benn politicien bu ñu xam lool ci réew mi bu xamal wàllu observateur ne benn adversaire politique am moo demoon ci benn sëriñ ngir sëriñ ko bëggoon koo yàq waaye liñ naan ko ëppati mbokk mënoo koo jëw moo ko dal ndax ci sëriñ ba mu demoon ngir di ma sëriñtu sëriñ ba sama mbokk la am na ku leen di ñoom wàllu ne ci élection locale yi ñu weesu Macky Sall su amul woon gàllaaj république di Bassirou Diomaye Faye bale gi mu yoroon ci campagne bi fu mu jëm gàddu ko yóbbu bale gayit du woon balek neen jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye yéen itam sant leen gërëm leen rédaction bi di leen dig daje à partir de 19h30 incha allah xibaar yi ci wolof 20h français ci kanam tuuti ngeen ànd ak euh, Mamadou Ndiaye ak euh, Mary Bey Diouf euh, ci li xew ci biir internet bi ñu ngi leen di ñaanal kenn dal ak jàmm jërë ngeen jëf.